mu mel ni rek Sénégal jamono ji mu ngi dund lu metti ci histoire politique am suñu sukkandikoo ci kii di Alassane sàmba Diop nekk directeur général groupe E-Media Invest jamono ji Sénégal dafa nekk dëkk bi nga xamante nii ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax gannaaw bu ñu fi gisee lu mel ni pétrole ak gaz. Sénégal xëy dëkk bu ndaw la ci biirum superficie mais dëkk bu mag la sur le plan diplomatique Sénégal fu àdduna taxaw ci biirum diplomatie ñëpp xam na taxawaayu Sénégal. bu noonu soo Sénégal dafa commencé dafa am gaz am pétrole am ay ressources xam ne ñëpp a bëgg te loolu dafa changé dimension Sénégal moo tax presse étrangère bi ñëw gën a renforcer dooleem ci Sénégal. yenn médias internationaux yi ñu bëri jàpp ni anam bu ñuy traité yenn information yi dara kat dana baaxu ci ndax defuñ lu dul yee na lu ñuy gis mooy suñ kilifa yi ñu nekk ci politique yi ñoo jox doole eh, médias étrangers yi doole yu bëri eh, njiiti réew mi fi muy waxee ci bitim réew eh, opposants yi pour médias sénégalais yi am lañ problème la fu ñu waxee mooy bitim réew ñoom tamit ñu profité. waaw xam nga boo nekkee président bu sama naa jeex dañ koy woowee États-Unis canard boiteux doole. mënatoo partenariat décider dara intérêt day changé ak même ñu nga nekkoon sa biir parti ñu xool ñoo fuñ dem feneen parce que yow amatoo loolu njëriñ nekkatoo ci nguur gi c'est comme ça que ça passe aussi avec avec les pays étrangers. Sénégal doon jamono ji réew bu ñëpp di bàyyi xel moo waral ba jamono ji ñoom ñi leen di ñaax autorités yi ñu gën a bàyyi xel lépp lu fi xew teg si daal di doxal jàmm.